yes wala boog wala wala à vous de choisir ce gars j'espère que vous allez bien maa du leen di nuyu di leen bëggee di leen bu mais tamit di show up comme d'habitude ici au girl Kenza 221 bien sûr votre grande chroniqueuse borom matricule 221 xaritu Et et la télé ak vous ci suñu chaîne YouTube Kenza 221 la chaîne des news la chaîne des plus belles chroniques mais aussi la chaîne qui vous fait vivre les meilleurs moments du game donc vous savez nga xamante jusqu'à présent vous vous êtes pas encore abonné j'aimerais bien savoir yéen lan ngeen xaar pour vous abonner. tamit ah dama abonnez-vous et n'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification pour ne plus rater aucune de nos prochaines vidéos Néna len les lo len bëgg xam ci biir hip hop gal sen mais ci man da ngeen ko mëna xamé tamit votre grande chroniqueuse donc abonnez-vous en même temps ngeen activer cloche bi pour ne pas rater les vidéos qui suivent vous jouez à 1xbet, n'oubliez surtout pas d'utiliser mes codes promo KENZA221 ou KENZA. Dina len permettre de gagner bonus de 100% pour le premier dépôt jusqu'à 150 000 francs CFA. mais si vous nga aussi jouer à Melbet vous pouvez utiliser code promo KENZA221 pour vous permettre de gagner bonus ba 150 pour le premier dépôt jusqu'à 60 000 francs CFA ce ne sont pas des lol. donc boo leen di jouer daw leen utiliser samay code promo muy 1xbet comme li nga xamné aussi modi melbet. alors sama gars vous ñu présenter leen jeune artiste rappeur qui répond tout simplement sous le nom de Ivo. donc récemment Ivo a fait une vidéo qui xamante c'est intitulé DSL ci la wax tay expliquer et détailler comme d'habitude hein à la fin de la vidéo yéen tamit ngeen mën joxe seen xalaat ci commentaire yi parce que man dama koy soxla bu baax a bax et dama ci jàngat artiste bi aussi da koy soxla donc mi ngi nonu ñu xooli un peu sur la vidéo DSL de Ivo ñëwaat légui légui let's go su baaxé ñu dem Big Paté man duma la tontu gaay ñu xooli ji vidéo bi te manke mo jango jongo demo diko mangi en ligne cardio plus niveau money my consommation produit na ma compte di noti son yi yëlelelelelele damay sos ni sos di boos di baas ku fii de gër lu dul sa yoos sa nopp déglu mësta cons alors on a vu ensemble la vidéo et cette dernière est intitulée DSL kenn nag mooy Ivo mais avant tout gars faisons la présentation de Ivo Yvon, c'est un jeune artiste rappeur qui est dans le game il y a de cela 4 ans. Bien sûr, il peut mais d'après moi, ak li nga il y a 4 ans de cela a commencé faire des euh, contenu commencé publier des affaires sur sa chaîne YouTube. bien sûr Saint-Louis le deuk. boy bin ndar-ndar la et Saint-Louis le représente. après avoir jeté un coup d'œil j'ai vu qu'il am lu clips vidéo waye tamit après avoir comparé ses précédents sound ak bi mu mujjé génné muy DSL dama nan gis na ci mom évolution bu baax sax muy ci côté lyrics flow technique ak tamit li nga xamante modi maîtrise du beat. légui nak sama gars ce qu'on va faire moy dañu ñew dugg ci biir sound bi. Le sound a pour titre DSL et ce dernier signifie tout simplement doo ci lenn comme je ma ko Big Paté à chaque fois nee la un ci do ci algo donc sound bi ego mais ego trip bu andale pic envers qui pic envers certains rappeurs Je rap bu ñu rap bi nga rappeurs ñu koy def duñ ci mais lepp mom la mom parce que mo té game bi ci ay gars ñu dugg ci biir sound bi vais affaire expliquer et détails. ci noonu baleen ko dégloo mu ngi naan dangeen saf suukar may chloroquine dëgg-dëgg puusal xamoo sa code PIN li nga fi am yëpp buubal bagages yi ci biti bu ngeen di laaj lii comme ay kayit yu ñu dibi donc fii dañuy am next level sur chloroquine PIN amaat ko ci biti ak dibi amaat ko tamit ci li nga xamante ne moo di puusal ak buubal waaye tamit dañu am une technique de comparaison ci suukar ak chloroquine Sucre, ñun ñëpp xam ni dafa neex Sucre, c'est trop doux en fait mais par contre chloroquine dafa wexxaat et si vous vous rappelez temps wu corona bi médecins yi moom lañ doon utiliser pour faj li nga xamante ni moo di la euh, la Covid 19. donc foofu automatiquement dañu am une technique de comparaison mooy genre peut-être yeneen rappeurs yi ñoom dañoo nooy contrairement ak lui moom dafa wexxaat daal yéen ma gën a xam. ay ca gars yi ñu continuer bu ngeen ko dégluwaatee mu ngi naan. seddoo orange yàkkal ma expresso man duma def partage ndax easy wifi easy free crédit promobile Maté Galaxy bi noppil noppil yow amoo réseau te manqué moo jàngoo jongoo demoo ci mu ngi en ligne 4G plus Ivo donc fii dañuy am champ ci réseau mobile yi parce qu'il a bien mentionné orange expresso promobile ak free mais tamit da koo exemple ci moyen d'achat de crédit nga xamante ne nii CEDO, euh, euh, ak Easy donc champ lexical bi dañ koy am ci les réseaux mobiles mais tamit ñu am rime sur les mots suivants mot Django ak jongo et quand il dit mate Galaxy », Galaxy bi Galaxy ben téléphone bu cher la Samsung Galaxy amn'a ay niveau nak mais téléphone bu cher la bien sûr te mën nañ koo jëlee ni lim ci bëgg a wax mooy moom moo tee game bi ci ay loxoom. ay ca gars yi continue ba tey dans DSL de Ivo boo leen ko dégluwaatee mu ngi naan gouverne leen ku wax ma noq la ci kaso bi ni senegal ak yi boobaa dootoo ko defati je suis partout comme un réseau wifi donc fii li mu bëgg a wax mooy moom moo gouverner game bi ku wax genre ku juum ba clash ko wala nga sànni ko pic dootoo ko defati dina la defal bagage te parce que dina la noq yéen a ma gën a xam moom moo ko wax. mais nag exemple bi da koo jëlee ci ki nga xamante ni moo di Macky Sall genre li nga xamante ne ni Macky moom lay dundee xëy na ak yenn sénégalais yi bu ko wax mu jàpp la tëj moom foofu la jëlee exemple bi. ayca bu nu continuer waatee déglu ki nga xamante ni moo di Ivo il dit encore man maay consommation ku jug na ma conse di noos ci son yi damay sos ni sos di bos di paas ku fi dëgër yu dul sa yos sa nopp déglu ma sa cons. fii dañuy am une allitération en S parce que boo leen xoolee mot bu mu mënti wax rek la lettre S mais daa defaale name dropping ci ki nga xamante ne moo di Zos Zos mbër la c'était un lutteur Mon mot doon wax soos soosaat donc name dropping bi da koo jaarale ci ki nga xam ne moo euh, Zos autant que pour moi. alors sama gars qui kii nag Ivo un jeune qui réside à Saint-Louis le sound a pour titre DSL donc man li ma koy wax mooy bon na gën a riche lyrics yi bien sûr certes que riche na mais na gën à niveau bi parce que talent baa ngi ci j'ai confiance en lui donc courage Broda les luy ñëw aussi euh, n'hésite surtout pas affaire yi le vous da affronter comme mu jàll xam. donc mi ngi noonu wax leen seen xalaat ci commentaire yi noo leen gisee ki nga xamante ne euh, Ivo. Bailen leen xel ci mom ngeen teg ko loxo may ko nopp pour plus de visibilité il est un jeune très talentueux sa chaîne YouTube euh, Ivo la fa def donc daw len gaaw ngeen abonné fa ngeen partager liker ses contenus pour plus de visibilité donc mi ngi non sama gars wax len no len gisee sound bi et la vidéo avec clavier claviers bàyyi mu tëmb Ivo n'oubliez pas de vous abonner d'activer la cloche de partager mais aussi de liker Commencez-le, je suis sur Instagram sous le nom de Kenza l'officiel ma page Facebook bien sûr Kenza 221 sur TikTok Kenza national et sur Snapchat Kenza Diallo gros bisous à vous love you all à la prochaine